barki Cheikh Saliou Mbacké xolol faw lii am parce que xam nga lu tax nit la dëgg la te barke yonent yàlla Muhammad Sénégal bu doon prix sa bàyyi li mu fi liggéey bari na Ahmed xolal yow la yàlla jiital tànn ko ci moom teg la fi mu neex mu naqari sunu borom dogal na ko ba pare Thione Seck rek nga bëgg Ahmed ñi am na yow Thione Seck rek lañ bëgg dëgg la Sénégal képp Thione Seck rek lañ bëgg waaye da ñëw wane yar wane teggin wane jom wane fuura wane fayda ba pare tabe loo am mbokk ko doomu aadama yi nii la mën a mel toog yow ba tey ñu ami jëkkër bay ami doom waaw rawatina njabootu papa coon ñii toog ay ñoom ay da ram daal jóg waaye tàccu leen mariasin may sa bigé tàccu leen ko lii keneen ku mu doonoon munoo jàkkaarloo public bi di way waaye nag mariasin may sa bigé may sa bigé maar ajinaat mi ci ndóom dakka deme mi ci lambay naaru kinne naaru papa coon weel woyal mu neex xappil la soirée continue non amen mais fils kay eh woy fils booy bi daf ma bëgg teg brique non kay père sa doom di il est dansé xam naa ko léegi dafa mun a way dafa nga dëkku ba sonn xam nga am na lu ma man la waaw ana amadi amadi fils kaay amadi arman arman kaay mais mais père non ki ne daf ma yónni ah jaaga waaw lu wax nee na poos bi poos bi waaw jaaga moom poos bi jaaga moom waaw poos bi poos bi moom lay jëndee essence moom ngay jëndee essance dëgg la non dama bëgg a seeñu balaa may dem. mu jox la nga seeñu. waaw parce que nee na groupam bii. waaw doole. acca yaa ko ko tàmmal. ana Amady. waaw xaaral mu jox la seeñu. seeñu dafa bëgg yaayam nag poos jaaga lay njëkk a duy. dëgg poos bi pour jënd essence tàccu leen ko waaye tàccu leen ko tàccu ko. bravo jënd waa ah, ah, père maa ngi sa jumeau de. waaw léegi nag yéen da ngeen a faral seen patron. waaw. waaw kontaan na fils baax na baax na baax na. maa ngi sa jumeau de boo wàccee. maa ngi lay xaar kër gi waaw ah, ok waaw. waaye tàcc leen ko waay bu baax a baax a baax jërëjëf Fouti wala.